الجنة لمن أتاعه ولو عبدا خبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا قرصيا قال تعالى في كتابه قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أحمده سبحانه وتعالى حمدا زكيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكي جنا بجي سنتي الله جل رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلن دي نيو دي لن زيار تبارك الله دي نيان يالا ريومي دي سنغال يالنا في يالا دولي جام دولي في ستره ak xéewal ci darajey sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla dàqal saytaani yàlla raxas xol yi sol ci leer ci darajey nabil mustafa sallallahu alayhi wa fa tabaarakallaahu nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi waaye nuyu kilifa aada yi nekk ci biir réew mi fa tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla na yàlla gënal guddal seeni fan yokk seeni wér ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nañu seen taxawaay fa tabaarakallahu ci réew mi ndax sayduna muhammad nee na xubbul watani min al iman bëgg sa réew daa bokk ci gëm yàlla fa tabaarakallahu waaye ñoom seen taxawaay ci biir réew mi wane na ne ñoom dañoo bëgg seen réew kon yàlla yàlla gën ay guddal seeni fan ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa fa tabaarakallahu nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci seen télévision Safina TV fa tabaarakallaahu mooy télévision bi nga xam ne diine ji rek moo ko ñor fa tabaarakallaahu ku bëgg a xam sa diine wala nga bëgg a xam kan mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah del suivre Safina FM Safina TV macha allah fa tabaarakallaahu macha allah eh, di nuyu baax Thierno Hamidou Bane ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a yegg. yàlla ko fa yàlla yeggale ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci biir télévision bi ak rajo bi di leen ñaanal yàlla yal na yàlla gën a taxaw leen ci daraje sayduna muhammad nuyu suñu directrice soxna Yuma Ba ziar ko bu baax a baax fa tabarakallah macha allah ñu dellusiwaat ak yéen ci seen émission Madhoun Nabi fa tabarakallahu émission bi passé ñu tàmbali woon benn xasida boo xam ne Cerno Hamidou Baan moo ko def ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nee naa la ñuy baax ñépp ñu ngi tagg sayyiduna Muhammad ndax tagg ba tagg jeex tagg rasulillahi moo ci gën Cheikh Alxaaji Abdou dafa waxoon ne bihi naa la bihi ci tëgg rasulullahi naa la la amee maa la nga xam ne naa la am na ko arrijaalu góor yàlla yi maratiban ci ay martaba martaba yoo xam ne minal malikil allaami mu ngi bàyyeekoo ci yàlla mi nga xam ne ñépp a ko xam te dëgg-dëgg martaba ya jallat anil xasri màgg na màggaay goo xam ne bari na bari waay goo xam ne kenn mënu koo takk kon fa tabaarakallaahu nit yàlla yi ñu ngi rawante ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waaye ñun ñëpp ñu ngi rawante ci tàgg njool màgg soo mënul woy rasulillahi deel julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yi yegg nañ ci ba ne ki nay dëgg mooy ki dégg tur rasulullahi te waxul sallallahu alayhi wa sallam kon xam nga julli ci njool màgg am na solo waye tagg ko amna solo ndax njool màkka nee na ku ma tagg bu yowmal xiyaamee mu yóbbu la kon fa tabarakallah gor yàlla yaa ngoog ñom ñëpp nga tag sayyiduna muhammad tay nak ñuy tànnoon xasida boo xam ne cerno mu cierno bashir tal moko def ci rasulillahi émission bi passé ñu tambalé won ko fas ko yegal tay inshallah ñu ngi yemoon ci fa qala khaliquna wa innahu la'ala kama atana biha fi ayaati alqalami tey ñu war a tàmbale ci inna salaata ala almuxtaari sayidina tukfa alhumuumu biha wa tukshafu alxumamu cerno xaamidu ne baan nee na inna salaata julli ala almuxtaari ci ki yàlla tànn sayidina ki nga xam ne mooy sunu sang di sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na tukfa alhumuumu daf lay fekk daf lay fegal ci ay tiis biha wa tukshaful xumamu waaye daf lay waññil ay njàqare Cerno Xaamidu Baan nee na bu la yàlla nattoo nga nekk ci ay xat-xat ay tolof-tolof ay tiis ay problème nga bëgg problème yooyu yàlla teggi ko ci yow mu deñ ba nga delluwaat ci mbégteeg bànneex nee na del julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax julli ci sayyiduna Muhammad dafay dàq tiis dafay dàq naqar waaye dafay dindi problème mu ne sallal ilahu salatan la masila laha ala nabiyul huda mal waxyu muxtatamu mu ne kii nga xam ne maa ngi lay digal nga julli ci moom ndax julli ci moom mooy daq ay njàqare ak i tolof tolof ak i naqar na kooku yàlla ci boppam moo njëkk a julli ci moom julli goo xam ne kenn mënu koo misaal inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yalla neena man yalla ak sama malaika ñu ngi andando di julli ci rasulillah la ci yalla tek moy yeen ñi nga xamne gem ngeen ma man yalla julli leen ci rasulillah ta nak fi'lu amrin la fi'lu amri nak moy ordre yalla dafa joxe ordre pour ñu julli ci rasulillah kon julli ci sayyidina Muhammad mbokk yi farata la ab dawar war di julli ci rasulillah ndax lolu Takar sansam ta kat Seydina Muhammad neena bu yowmal xiyaamee sumay def intervention pour dimbali jami ñu mucc ci mbëggalum safara ci taxaway bi ci penc ak safara pour ma dugg aljanna damay xol ñu eppol li ñu julli ci man ma rambu len duggal len aljana ba nopi do ra gees ñu ci dess kon fa tabarakallah bi séré tangor yu metti nga bëgg caa gaaw mucc der julli ci rasulillah sallallahu Alaihi Wasallam. mooy nag yàlla moo julli ci yonent boobu nga xam ne moo yonentim njub ki nga xam ne wax yu ci moom la wàcce moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Cerno Xaamidu Bànne waktub lana rahmatan dunya wa axiratan bi abdika al mustafa wal munsajimu mu ne waktub lana rahmatan yàlla ñu ngi lay ñaan nga bindal ñu nga bindal ñu yërmande dunyan wa axiratan ci àdduna ak bi abdikal Moustapha ci sa jaam bii nga xam ne yaa ko tànn mu gënal la ñëpp wal fadlu mun sa jimi ki nga xam ne ngëneel yaa ngi ballee ci moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye boo bëggee am ngëneel bëggal njool màkk dee ko tagg soo bëggee am ngëneel leel julli ci rasulillahi waykat ba nee la in madaxtu muhammadan bi maqaalati lakin madaxtu maqaalati bi muhammadi nee na su ma jëlee sama xalima di tagg rasulullahi nee na tagguma njol màgg ci samay wax waaye damay tagg samay wax ci rasulillahi ndax la nga ciy déggee mooy boo taggee njol màkk yow yaa ciy amee ak yëkkatiku waaye njol màkk moom fa mu nekk ma nga fa ba tay ba tey koo xam ne yàllaa ko tagg ba noppi kenn mënatu koo tagg ko gën a passé waaye boo taggee rasulillahi ci ngëneelam ak barkeem ak yërmandeem ak li ko yàlla defal ca nga ca la lay sédd ba àdduna bépp di la tudd fa tabaarakallaahu ndax xasida bi Cerno Xamidu Baan def ci rasulillahi dañ koy waxtaane ba keroog àddinay tukki kon moom moo ci amee ngëneel kon koo koy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loo ko jox mu delloo la ko moom jol màkk kon nag ñu ngi ñaan yàlla way bii ñu koy way ak julli gi ñu julli ci moom yàlla na ci yàlla sukkandiku sotti ci ñun yërmande ndax yàlla mooy borom yërmande yónni sayduna muhammad mu ñekk jëmmi yërmande ci àdduna bi sallallahu alayhi wa sallam cerno xaamidu ne wa qad asaytuka fi sirrin wa fi alanin illaa xafarta faqad zallat biyal qadamu mu ne yow yàlla mooy naa la ci li nëbb ak ci li feeñ man daal defkatu bàkkaar laa maa ngi lay tooñ yow yàlla te xam nga ne yow yàlla maa ngi lay tooñ ci li feeñ ak li nëbb waaye nag boo ma jégalee rek fa tabaarakallaahu lépp daal di deñ waay waay yàlla maa ngi lay yégal ne damaa tarxiis rek waaye fa tabaarakallaahu xam na ne yow ya yàlla yàlla yaay buur yaay ki nga xam ne yaay jéggalaakoon Seydi Xaaji Maalik waxoon law kaana baabuka laa yaatihi zu isamin fa ma taxaw xafuuran kulla awzaari si daxaj maa dina ne yow yàlla bu fekkonte ne ku la tooñ ñëw ci sa bunt ne la jéggal ma doo ko jéggal kon kenn du la woowee yaa xafaaru te mbokk yi nag tur yàlla yi bu ci nekk daa war a fonctionné te tur bi ñuy wax yaa xafaaru pour muy fonctionné faaw gaa ñuy tooñ bu ñuy tooñ nag di jéggalu yàlla man leen jéggal tur bi mën a fonctionné wu moo tax Seydina Muhammad waxoon ne yéen ñëpp ngi àndandoo di jaamu yàlla kenn bañ mooy yàlla ma ray leen yéen ñëpp indi fi ño xamne dañ may tooñ ma jéggal ma di len jéggal waye nak bul sukkandiko ci wax jooju ba tax ngay ngay tooñ yalla de dañ la bëgg a jàngal xamal la ne la rek ya ghafar fa muy fonctionné ndax nit matul summiyal insanu insan li kasrati nisyan nit dañ ko tuddé nit ngir bari faté faté yi ngay faté nak moo tax ngay togn waaye deug deug bo togné nak jéggalu sa borom ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi man la zanbala ñol ñool màkka nee ne kii def bakkar jéggalu yalla ak ki deful bakkar ñoyam ceerno ba bànne kon yalla ma ngi lay jéggalu te xamna ding ma jéggal ci li neub ak ci li feeñ ndax wax deug yalla man ma ngi lay togn ci li neub ak ak li feeñ kok nak maqama nit yalla la ndax kat ah hasanatul abrar sayiatul muqarrabin nit ñu bax ñi li ñu jappé li ñu jappé ak yiw ak lu bax ñi jege yalla ñaawtif lañ ko jappé yegulone kon nga xamné nit ñi yemuñu wàccuwaay bëri na koo xam ne nii la mu def ba yaakaar na li yàlla gërëm na ko rafet na ca moom ba mu yëg ca boppam boo demee ci gaañu jege yàlla loolu ñaawtiif lañ ko jàppee cerno xaamidu ne walastu arju gadan illa shafaatahu farham bihi ajizan li zanbi mujtarimu mujtarimu mu ne man day ëllëg yowmal xiyaam man cerno xaamidu baan yaakaaruma kenn mu ramb ma kudul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla maa ngi lay ñaan nga yërëm sa jaam bii nga xam ne daal lot ngir ay bakkaar yu bari daal lott ngir ay tooñ yu bari maa ngi lay ñaan nga yërëm ko ci barke sayyiduna muhammad sa sallam mu ne walastu nekkuma arju di yaakaar xaddan ëllëg illa shafaatahu lu dul ak rambam moom sayyiduna muhammad kon nag xam yàlla nga yërëm yow yàlla bihi ci barke njool màkka ajizan aji lot aji aji lot ah mujtarim aji bàkkaaru lisan bi ngir ay bakkaar muy man Cerno Hamidou Bane fa tabarakallahu nit yàlla yi ñoo waxee noonu alaaji Maalik waxoon na ne tamawajal baxru baxru zanbi yaasiqati wa inna ni rabbi xiftul xarqi yàlla sil xaaj ma dina yàlla sama bàkkaar dañoo bari ba mel ni duus géej te damaa ragal lab ca yooyu ay waay yàlla yàlla nga ma jéggal te kat yaakaaruma lu dul sa gaalu yërmande gi wa ma safinatu turja gayra rahmatika al uzma al amimata kullal xalqi yàlla sa gaalu yërmande gi nga xam ne ñëpp xaj nañ ci moom laa yaakaar Cerno Hamidou Bane noonu la waxee nit yàlla yi ñooy waxee noonu fa tabarakallahu mu ne fa huwa nabiyu alladi turja shafaatuhu wa huwa al azimu alladi tumha bihi lamamun Cerno Hamidou Bane nee na Seyduna Muhammad mooy sang bi nga xam ne ci moom rek la ñu yaakaar bu yomal xiyaamee mu rammuñu ndax safaatul kubra ramb gu mag gi yàlla nga koy jox Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ah, bis bobu ñëpp ay tiit ba mu dess sayyiduna muhammad alaihi wasallam Cheikh Hamidou ne mom moy ku maggi ki nga xam ci mom la faré bakkar yi ndaw yi ak yu maggi waman yuhibbu rasulallahi yatbauhu fi kulli amrin daa ilayhi yaltazimu Cheikh Hamidou Ba képp koo da nga wax ne da nga bëgg sayyiduna muhammad dang ko wara top ci bépp mbir mo xam ne ca waye na nga dogu ca temu ca kon boo ne bëgg naa sayduna muhammad njol màkka woola ci alxuraan wuy woo ko mu woola ci sunna wuy woo ko mu woola ci njub wuy woo ko mu woola ci maandu wuy woo ko mu woola ci jaamu yàlla wuy woo ko war ngaa xoolaat sa cofeel ci rasulillahi kon boo bëggee sayduna muhammad da nga koy roy wa man yaddaci xubba rasul wa lam yakun bi sunnatihi mustamsik fa huwa kaazib waykat ba nee na boo nee bëgg naa njol màkka te jàppoo ci sunnaam nee na loo dëgg kon ceerno xaamidu nee na ku bëgg sayyiduna muhammad dang koy top ci bëpp mbir mo xamne wona la ci muna fa inna taatahu lil khalqi munjiyatun Izal taqayna ila arrahmani nahtakimu neena na sayyiduna muhammad ak muccu la ci minde fi bu ëllëgé bu ñu ak yalla mu ñuy atte cerno hamidu banne na képp koo da nga sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam. neena yow di nga muccu mune waman yakun bi nabiyillahi malja'uhu daamat salaamatuhu wa saadu multaimu mu ne képp koo xam ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa wéeruwaay nee na sa mucc dana sax sa texe dana sax te bu yowmal xiyaamee da nga am wéeruwaay kon nag la nga cay déggee mooy ku jël keneen ku dul njol màkk def ko wéeruwaay perte ga gaañi yàlla moo jël sayyiduna muhammad bind ko ci leeram jël ci leeru jol màkka binduñu ci tànn sayyiduna muhammad mu gënal ko lépp moom lu mu am moom yàlla mu jël lim gën a fonk muy alxuraan ak diina jox ko sayyiduna muhammad yebal ko ci xeet bi mu gën a bëgg moom sayyiduna muhammad salaa sallam yàlla joxoñ ko baaraam ne gaañi su ngeen bëggee jubook man na ngeen roy sayyiduna muhammad salaa sallam kooku moo fi nekk gaañi ku jàpp ci keneen ku dul moom perte nga mu ne fa inna xubba rasulillahi mafxaratun wa zuxru kulli mu mutiin yow ma yaxtasimu Cerno Hamidou Ba nee na bëgg Seyduna Muhammad puukare la koo sopp nga ne njool màkka nee na lii doy na ndam doy na puukare wu gaa ñi damay faral di wax ne booy fan fanwal ku la neex waaye booy bëgg di jël sa xol di ko joxe na ko jox Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax njool màkka nee na al mar'u ma'a man ahabba nit ku nekk ba yowmal xiyaamee ki nga bëgg ci sa xol yéenay bokk logement ci aljanna waaye kon ñi bëgg njool màkka ak njool màkka ñooy bokk logement kon nag boo jëlee seytaan def ko muy sa soppe ah bu yowmal xiyaamee ngeen bokk logement ah. mu ne bëgg Seydina Muhammad tamit ak ngañaay la ci képp koo xam ne yaa ngi topp njool màkka ngañaay la ci yow te bu ëllëgee bis ba gaañee xuloo di buuxante yow doo ca bokk ndax yàlla nee na yowmal khiyam gaa dañu xulo di poñante ku nek nan sa morom yaa ma nangam yaa ma yaa ma waxoon lii ak li ki na waxuma lako won ya do dofoon sa dafa bopp yaa gënoon a xam ne fi nek lañ wara jaamu ya sa bakkan bëgg lu yomb xam nga ne man awma aljanna awma nangam wax ji bari lol waye nak ëlëk bis bo buñ ca yeggé Cerno Hamidou Bane ne na ko koo da nga topor sayyiduna Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yow do bok ci ñi xulo parce que ya nga ci yoon wu jup di nga laq sa mënd yalla da nga ñëw rek am sa laisser passer janna kon nañu top sayyidina muhammad muna wa kayfa yashqa mru'un fi qalbihi ahmadu wa kayfa yas'udu man fi qalbihi sanamu cerna hamidu Bane nee na naka lay texee dee naka lay texee dan koo xam ne xolam dañ ca fekk Muhammad cerna hamidu Bane nee na képp kuñu vérifier sa xol fekk ca bëgg Muhammad neena yow mëno ala kulli xaal wa ala xaalin kullu faw nga dem aljanna parce que xool bu bëgg njool màkka dem aljana mu ne wa kayfa yasaadu man fi qalbihi sanamu waaye naka lay texee koo xam ne xolam ab xërëm moo ca nekk kon képp koo xam ne danga bëgg xërëm bàyyi fi njool màkka mënoo texe kon gaañu nañu bëgg njool màkka nañu ubbi sunu xol yi tàbbal ci rasulillah yi te génne ci lépp luy xërëm mu ne nag asmaanu azmaanina xubbul mataa'i wa ahwaa'un wa maalun wa jaahun ribbuhun nadamu Cerno Xaamidu Ban nee na jamono jii ñu toll suñuy xërëm mooy bëgg matériel àdduna ak bëgg bànneex bëgg alal bëgg daraja nee na yii mooy mooy xërëm yi jamono suñu jamonoy tey takat yii seeni mujj réccu rek lay doon gis nga boo bëggee matérielu àdduna wala nga bëgg bànneex wala nga bëgg alal wala nga bëgg daraja Ceerno Hamidou Bane fa ngay mujjé rek muy réccu kon suñu xëremu jamono tay moy yiima la limal nañ ko moytandiku ndax mujj ga amul solo Ceerno Hamidou nee wa tilka qatilatun lin nafsi muhlikatun fa firra min sharriha tasmu wa tastaqimu mune ne la limal dafay bakkan ta daf koy alak kon dawal ci ayam boko defé denga di nga ku te di nga jup gis nga boo moytandikoo bëgg alal moytandiku bëgg matériel àdduna moytandiku bëgg bànneex moytandiku bëgg daraja Ceerno Hamidou Ba nee na mucc nga waaye nag yii bu te daa nekk sa xol nee na tabaarakallaahu dina rey sa bakkan te dina la alag kon nag dawal ci ayam su ko defee nga yëkkatiku waaye su ko defee nga daal di jub mu ne waltam na al waltam na al qalba ila xubbil xabibi alladi aqwaaluhu xikamu Cerno Xaamidu Ba nee na tereel sa xol bi ci bëgg matérielu àdduna waaye jëme ko ci bëgg soppe ba nga xam ne ay waxam yépp njariñ la te mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne la njol màkk gënal matérielu àdduna na la njol màkk gënal bànneex na la njol màkk gënal bëgg daraja waaye na la njol màkk gënal alal ne na sabbat xutaaka an nahji rasuli ah sabbit xutaaka an nahji rasuli kama kaana alsaxaabatu wal atbaacu yatatimu Ceerno Xaamidu Ba nee na na nga saxal saw jéego ci yoonu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko saxaaba yi daan defee ak taabiina yi nga xam ne ñoo toppoon ci ginnaaw saxaaba yi nañu daan toppee sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ceerno Xaamidu Ba nee na nga toppee njol màkk noonu mu ne fa in faalta najawta dëhra yaa siqati wa inda yowma aljaza tarda wa tabtasimu nee na soo ko defee di nga mucc ci àdduna yow yow yow yow sama xarit ya siqati yow sama ndëgër laay soo ko defee ne di nga mucc ci àdduna waaye bu yowmal xiyaamee di nga kontaan te dinga nga muuñ di nga bég kon nañu topp sayyidina muhammad salaa sallam mu ne nag wa kullu man xaada an diini nabiyi faqad dalla sabila wa in lam yahdi yattarimu nee na képp koo xam ne danga noonoo diine sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku mooy ki nga xam ne wàcc na yoon wu jubba jaar ci yoon wu dëng wa kooku mooy ki sànku te it bu gindeekuwul nag ba faatukat yattari mu dees na ko lakk ci safara ba mu doon dóom mu ne kan fa aatiina min ladunka rahmatan wasiat wala tuzi qalbana rabbi fananhasimu yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu dikkee ci sa yërmande bu yaatu ba waaye waaye bul jengloo ci suñu xol yi ci ñàkk tegu ci yoon wu jub ci topp bànneex ak lu kenn xamul ndax buñ ko defee rek daañu daañu daañu daañu màbb kon yow yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu sëmbartal sa mbalaat mbalaanu yërmande raxas suñuy xol ba teg ñu ci yoonu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye bëggloo ñu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag maa ngi koy ñaan bi jaahi xayril wara tubna ilayka fa jut bil afwi ya rabbana nasaad wa nantaimu maa ngi koy ñaan ci dara ji sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi tuub yow yàlla jëm ci yow waay waay yàlla nga tabe ci sa yërmande yàlla nga ñu jéggal yow yàlla yow mi nga xam ne ah ci yow rek la ñu war a la mën a muccee waaye ci yow rek lañu ñu mën a xéwloo kon yàlla ñu ngi lay ñaan sa mbalaanum njéggal yàlla nga ñu ko sëmbatal ci sunu kaw jéggal ñu ci darajey sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qad ataynaaka min baabi alxabibi alladi asraaru miqdaarihi fi lxalqi muktatamu dikkee nañu la yow yàlla bàyyeekoo ci buntu sa soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ca dëgg-dëgg ay ay darajaam ay garaatam dafa nëbbu ci mbindeef yi ca dëgg-dëgg kenn xamul darajay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn xamul dayoom lu dul ne yow yàlla yow rek yaa xam dayoom waaye ñu ngi lay xamal ne yow yàlla gannaaw ba nga xamee ba noppi ah ñu ngi bàyyeekoo ci buntu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw ci sa buntu ngir rek nga jéggal ñu yow yàlla yow mi nga xam ne yaa yaatu yërmande faghfir lana wa li kulli muslimina bihi wastur lana aybana yaa man lahul karam yàlla nga waaye yàlla nga ñu suturaal ci suñuy ayib yow mi nga xam ne yaay borom tedd nga ku yàlla solal mbalaanam sutura kenn du la xamal lu ñaaw waaye ku yàlla xaawi sutura kenn mënatu laa suturaal kon yàlla yow mi borom sutura yàlla nga ñu sëmbërtal mbalaanam sutura ñi baax ñépp ñaan nañu ñaan nañu sutura asbil alayya rida as sitri yasmulu nii wa walidayya ca sidi xaaji malik kon sutura mat na ñaan gaañi wasalliyanna ala alhaadi wa man salaku ñu ngi lay ñaan yàlla nga julli yow yàlla ci aji gindi ji ji rasulillahi salaa sallam nga xam ne moo jubal ñëpp wa man ak ña nga xam ne salaku soobu nañu nahjal hidayati yoonu njub yaa rahmaanu yaa xakamu yow yàlla yow mi nga xam ne yaa xereñ ñu ngi lay ñaan yàlla nga julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ña nga xam ne ñoo jaar ci yoonu njub wal aali ak njabootam wa saxbi ak i wal atbaa'i ak ñi topp ci moom ajmaihim mboolem seen yallaahu yow yàlla yaa rabbana yow suñu borom yaa man lahul qidamu yow mi nga xam ne yaa fi jiitu sa jiitu gi nga gi nga jiitu ci àdduna nag moo tax nga mën nga mën a amal li fi am lépp yow yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla na nga jéggal mboolem julliti yàlla nga jéggal mboolem ñi topp yoonu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla na nga jéggal yërëm mboolem ñi nga xam ne ñooy taxawu diine yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom yërmande tabaarakallaahu ñu ngi lay ñaan ci daraje sayduna muhammad salaa sallam nga jéggal ñu mboolem bakkaar yi fa tabaarakallaahu mbokk yi foofu la qasida bi yam allahuma salli ala saydina muhammadin wa alihi wa sallim ñu ngi ñaan yàlla képp koo xam ne déglu nga waxtaan bi yàlla na sa cofeel ci rasulillahi yokk waaye ñu ngi ñaan tabaarakallaahu réew mii di Sénégal yàlla na fi yàlla gën a dolli jàmm gëna doli sutura gëna doli yërmande ci xeet wi ak ci dëkk bi yépp fa tabarakallahu ma sha allahu kon mu ngi nonu loolu lañ indi lon tay di ñaan yàlla yàlla ñu ko wat ay yoon yoon yoon di leen jox dig daje ci yeneen émission waxna la li moy seen émission Madhoun Nabi ñi fi waxtaan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kan moy rasulullahi waye di fi waxtane ak ñangalé mu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam waye di waxtane mag ñu bax ñi nga xamne dañu am ciofel ci rasulillahi tag sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam fa tabarakallah ñi waxtane seeni qasida ndax tabarakallah lolu mën na yok suñu ciofel ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu